jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu ci dixième édition réyit bi ba tey mbokk yi dañu ñëw ci box boo xam nag vraiment buñ fi ñëwee loxo dar na gémmiñ te yóbbuwaalewul te buub ceeb muy bergerie ki nga xamante si ni mooy Touba Got euh, macha allah ñu ñëw nag fekk fi exploit bu am solo ndax fekk nañ fi ki nga xamante si ni mooy waareen waareen nag xam naa ne luñ ko xam-xam ay bokkam gën ñu koo xam euh, lu muy loolu rek dañuy bàyyi ci présentation bi. sëñ Fallou mi nga xam sànq fekk nañ ko fee muy def présenté bu am solo sëñ Fallou ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk téléspectateurs yi. waaw ku baax maa ngi lay nuyu di la ziar comme ni ma la ko waxee woon rek yaa ngi fii tey ci bergerie Touba Got waa kër Serigne Saliou. Touba Got waa kër Serigne Saliou waaye man dañoo fay fekk nag borom gétt gi muy waareen euh, loo ñu mën a wax ci moom. waaw waareen nag moom côté moom dañ fiy taxaw ndax fi ne nii moom mooy bomb mooy attraction foire bi ndax meilleur record hauteur li espoir mosul am ci Sénégal moom la génne muy cent quinze point cinq centimètres. moom laa fekk ñu koy waxtaanee ci boxe ba la. moom la ñëpp di waxtaanee kay fi mu mu doon nag maal bu extraordinaire ni mu mel di ko xel ci ay doom aussi quoi waaw. Euh, tey boo ñu doon ñëwal ci racinam ndax ndax li ko dal tey ba Sénégal gépp di ko waxtaanee. exploit bi mu génne. ah moo tax mu mën ko am fu mu bokk. non kii lu mu am nii jommuñu woon. ndax kii ba mu juddoo ba ni mu toll nii macha allah moom dafa mës a attirant quoi ndax moom mu ngi judd la le 10 décembre le 10 bii lay am 18 mois seeg kook ay magam wan leen ni mënoo leen ma ci benn anam ñëw génne record ci yeneen kii bi tamit mu def ci yeneen maturation yi doy waar waaw. Euh, daa mel ne ren lay soog a compétir ci foire. mu ngi doog a génn foire même bergerie bi tam bi mooy première édition am ci foire ñu ngi doog a génn. mais aussi génn nañ génn bu am solo ndax génn nañ xar yi rafet nañ macha allah toppatoo bi jaar na yoon quoi waaw. mais xar mi est mën naa xam na mu dëgg-dëgg. waaw xar bii nag moom euh, de passage dañ ciy nuyu Abdou Seye ndax ci meññee fa moom ci la bokk ndax daf ñoo jaayoon yaay ji mu ñëw ànd ak tëb léegi euh, mu jaay yaay ji mu ànd ak ay tëb un mois deux mois ci la ñëw jur ko fi. mom nak papa nek doom magistrat magistrat mom xana ken dot ko waxati cham gi yaayam di dom Petit tulul Petit tulul doom salum. prefet salum Petit tulul yaayam nag doomu macha allah Papa Dieye quoi ci côté yaayam kon dal dañu bëgg wax ne tay limu gëna ci concours bi ci foire bi lu war la ndax fi mu la. non ki ay ndaanaan ko sek ay ndaanaan kep ñoo dug ci negu ndayam nek ci negu bayam ki lepp lu mu mënti daf ko ki quoi lepp lu mu am rek moko mom jëmm jee fi nekk rek mais gone gu ndaw la. ah jëmm jee nekk waaye gone gu ndaw la. gone gu ndaw la ay magam la ko sekkal wan leen ne du ma seen morom. waaw mu nekk xale bu ndaw. sëñ Fall moom xam naa daa pànk pànk googu boo moytuwul moom la bëgg a dugal ci ci ci te loolu xam naa ne gars yi duñ ko nangu bi taxaw ni sa waay su ma juumul daa mel yaay borom bergerie man la yàlla dogal maa ngi borom bergerie bi maa ngi tudd Mawo Diouf dëkk Angal Serigne Fallou quoi. ajo tey laataa may ñë fii waxtaan wi bari na lool car macha allah bu yàlla bu la kenn catu ndax xaw ma noonu sax xawaaral la ñuy wax waaye maa ngi fële taxaw fële sànq dégg ñu ni li mu génne mus ñoo am ci l'histoire l'histoire laadum ci ci dimension boo xam gagné na ko fii ci concours bi loolu tey bi nga ko déggee wala bi nga yóbboo saxaar ci concours bi mu gagné loolu euh, lan moo la ko may. waaw li ñu ko may mooy loolu daal ndimbalu sunu borom la parce que. yàlla dafa dogal ñu jënd femelle bi comme ni ko sama boy bi waxee ñuy nuyu de bon oh, biñu jëne femelle bi mu ñëw ak tepp ben dom magistrat tepp ko donc mu ñëw def fi même pas 3 mois wàccee ki donc kon xam ko amul liggéey donc mbiru suñu borom la rek quoi buñu ko jox ñu ko sante wa nami tamit toppatoo bi yaakaar ni soko soko soo nit du mën am lii tey waaw toppatoo bi aussi tamit man duma ci lu bare bare ba sa man mom xontu dina ko jënd joxe mhm. mais dafa am sama ben jarbar bu fi ne buñu wax sóora daanaka moo yoroon mbirum xont bi ak di nekk yor entretien yi comme man newuma fi du ma fi ne lu bari ñoom ñoo géré woon loolu quoi mais daal loo ci mënti dégg mooy sant yàlla rek quoi yàlla daal mooy dogal moo dogal loolu. mais en tant que propriétaire Touba Kër Got mi ngi soog a ñëw ci compétition bi jël raw gàddu gi yaakaar naa ne maal tey dootu fi def lim mu fi def loolu ngay soog a ñëw ci compétition yi ñëw rek taxaw ci taxawaay boobu noonu euh, ban message nga ci mën a dolli. waaw loolu da lay gën a ñaax parce que xam nga comme booy doog a dugg ci dara. ne bëri rek lol dal ci yow da nga war redoubler d'effort parce que tànk ginnaaw donc dootul meuna a amati mais lu ci lu ci meunte am rek ñu tek ko ci loxoy suñu borom tey tey def effort lu ñu meun le maximum possible bu ande ak dimbal suñu borom rek meun nañu gëna avancer quoi. ndax mom waayoon jox na la dara ci box bi. jox na la comme manam maanaam gu fi dara. si si wàcce na fi am ñaari ñaar yu jige goor yi mom mo leen wàcce bi amna 3 mois benen bi ci dess amna 5 mois cheikh la cheikh am mo ngi ne moy bébé ami mom dama ko dama ko wàcc kër ga quoi jot na fi wàcce amna benen bu mu wàcce won sax mais yalla dafa dogal bobu tanu quoi. domam yi mu wàccee ndax am nga yakar ni tay sen bay taxaway bi mu am tay ci foar bi séntu ko ci ñom ñi. wa bi am 5 mois mom ñukay wax taw euh bi papa am bi mu am 5 mois tolul nii mom donc man yaakar naa ni kii sax moy man papa ji quoi. Mhm. ci sama yaakar bu dara jiwee soo da melni kon bergerie bi amna secret bo xam ñom ñoko teyel seen bop nak non non secret bi nak dara la rek. ak lo xam tamit suñu borom di wacce ay ay mbiram fu ko neex rek. bay ko day dag sa fe bay ko mu dem waaw allez suñu borom mbiru suñu borom la rek suñu borom moy def lu ko neex mais de toute façon mom ki mom mhm. waa bi muy am moment yi tollul ni quoi. gis na ko ci ndax propriétaire bi mu andal manam Euh, dignitaire gi mu àndal gis ma ko ci bàyyam ndax bàyyam moo ko ëpp foofu waaye ñu ko téye mu tax waaye moom mi ngi lànk rek waaw gis nga gis nga moom bi papa bi muy toll bi papaam di toll nii tollul woon nii ah bi muy am cinq mois yi donc moom am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax boo xam ne war naa mën a def relève bi ko bu ci buñ ci yàlla dimbalee aco bergerie Touba Kër Got ngeen i am ba tey waaye nag ku fóotal mba troccil bar di nga jënd xont waaye ki xam heure bi mu leen koy jox eh xam ni mu leen koy joxe dañ koy yëy ndax dañ koy xooj waajaa ngi ni ma bàyyi la nga nuyoo <laughs> way ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di contane ci prestige si liggéey bu am solo bi ñuy def Thiès ak biti Thiès euh, sen site internet bi sen télé bi macha allah mi ngi avancé ñi ngi dégg sa ab radio ñi ngi leen encourager bu baax dal ci sen liggéey dal wa di leen nuyu di leen dalal si bergerie bi. nga nekk ci bergerie bi. Euh, féetoog jur di leen xon di leen toppatoo. tay bi nga dégg indé sa mal bi mo def exploit bi yaaka nan lo nga wara da nga wara doli li nga don liggey da nga ko war a waaw waaw waaw dañ ci gën contane di ci sante suñu borom ndax bo ñëwoon ñëwee ci borop euh di compétir du compétition sax fo la rek xam nga euh avec fair play ak say say morom yu bare bare suñu borom xéwalee la hmm, may la ci yenn euh, cër yi da nga ko ciy sant bu baax xam nga lepp mom la dal xam nga wa di ko sante momit di ko gërëm mom Mao waaw sama tonton. Euh, yërëmul poosam yërëmul dara daal xam nga lu mu am rek ci élevage bi jomb ko ndax ku ñeme xont la xam nga li muy def ci xar yi sax xar yi joxaguñ ko ko quoi waaw te xalaat naa bu demee ba ci kanam allah allahu rabbi fu ñu dégg euh, champion yi gën a mag dañ ko fa dégg daal. damaa ñëw ci bergerie bi gis fii tamit euh, ay maal. ndax moom mi taxaw. gis naa fi ñaari doomam yoo xam moo leen moo leen waddal. waaye ma gis fi tamit benn tëng. ana lu waral nyari ñaari mal ben teung ci ben box ñaari mal ben teung amu am na fi sax euh, amna fi sax benen femelle mais da taxone fa euh, nu mu tudd dafa déclenché won chaleur té comme mom dafa waron dem compétir mu koy perturber xam nga té dafa soxla won tranquillité mo taxone ñu isoler ko ci ci feulé na lé moy yaayu mal bu ndaw bi mi ngi tollu ci 3 mois Euh, ñoom cinq daal lañ sélectionné woon indi leen quoi comme première fois la rek ñu tànn quelque rek indi incha allah beneen yoon ñu def lu gën a lu gën a mag daal. mais mbaa mbaa mbaa gars yi bu ñu seetaanee à travers le monde entier ci prestige. Euh, ñu gis tamit ñaari doomi waareen yi nga xam ni damay ñaan yàlla na leen cat seexlu. waaye ni ma leen gisee car masala bu leen yàlla maye ba doon fekkaat leen fii Euh, Sénégal daal war na ñoo xam ne xale ñëw nañu. mbaa gars yi du leen ci sonal di leen topp da ngeen wax lu leer jaayul day jaay wala jaayul. <laughs> waaw loolu am na moom ndax sollicitation yi bari na euh, mais pour l'instant daal dañu bëgg liggéey ba si kanam xool daal comme yàggaguñ ci euh, daanaka suñu deuxième année lañ nekk ñu liggéey ba si kanam rek après ñu yaatal affaire ndax élevage moom yaatal na daal. yaatal xam naa ne li may wax Doudou. mooy que ni waa képp ku yor Ladoum fii ci Thiès na waajal boppam. te xam ne waa Touba got man tay la leen di soog gis way lima len leen gisee tey taxawaay bi ñu am. ndax njiit gi mo am solo. ndax bari na ño xamni di len jité waye ci jënd xont ak joxe xont gi gën xaaliss fa la ni daano waye amna ño ñoo xam dañuy silmaxa dañuy budd rek joxe ndax amour bi ñu am moy saa ñu gisee nañu xari rek da mel nag patron bobu leen yàlla jox. dëgg la noonu la mel non la mel fimne fimne neeku fi. mais bu liggéey ba wàcc mi ngi jàkkaarloo xar yi ba heure tëddam jot mu tëdd des fois sax yenn petit détails yi sew sewaan yi sax waa yow nga xam ni yaa ngi fii yaa ngi Sénégal yaa ngi ci wetu xar yi doo mën nga see sax bañ a bàyyi xel mais moom moom euh, amour bi mu ci am ak bëgg gi xam nga ak xër gi day tax euh, chaque jour lu ndaw sax da koy seetlu xam nga à travers vidéo yi xam nga di la ko wax te yooyu Euh, yëpp day yokku développement bergerie bi xam nga tay yërmul tamit posam luma ko wax rek da koy wut xam nga luma ko wax rek da koy wut dal xam nga. xëy na loolu moo waral exploit bi tay waaye duñ wax ba génn box bi nak te duñ wax euh, ci jibi ndax mo mo wacce ñaari ndaw yi. non non non non wacce moom wacce gu fi. mom moy kan. mom Fallou. waaw ki nak moy victoire. ñom ñu ngi koy nivalé dañ ko ki Balla Gadiaga mo ñu ko jox quoi diko nuyu borom capital diko ñaanal jamm mom nak victoire di doomu major major di doom ci ki nga xamni moy batagne batagne di doom magistrat côté yaayam top model moko jur quoi top model avenir ak ben doomu job boulanger ñoko jur kon mu doon xar mo xam fim bok mom lum jur bu déggee bu déggee dali xel na ko ay ndanan rek ko sekk de ay ndanan dong añal la day doog a musul jur musul jur day doog a tëbu nii ba am deux mois waaw moo tax comme que rafet na attirant na wala ñëw sélectionné waale ko rek indi ko pour bégal gars yi quoi. yàlla ko yàlla may oom yu sedd guy. aywa kon sama waa ji. mu mel ni rek euh, àgg na ci cëppaandag bi ndax li ma ta wax lépp wax nan na yàlla dàq cat ci bergerie bi yàlla nañ fi taxawaat ay at fekk mu gën a mu gën a mu gën a yaatu ba ñun sax bu ñuy dem ñun ñu jàppal ci côté boobu yóbbaaleel bii waaw loolu loolu yàlla na ko yàlla dogal ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm yéen tamit vraiment seen taxaway ci élevage ak tout donc ñu joxe rendez-vous comme ni ko waxee rek benen benen benen benen benen ki foire bu ñëwé fekk yow boy boy dem sax mën a balé dara bu té sama ñaan gi ñu bayiko xal xel respecté ko rek moo tax dañuy ñaan lépp bo ñëwalé nga xam boy dem ñun la jappal bi yobalé wa inshallah allah sama wañu kon dégg nga kon nga gëna a góorgóorlu ci xel euh, c'est pas évident plus de 400 box mi ngi fi ngeen boole ñu ci ñi ngeen di wone ci seeni plateforme Hmm, contentement la quoi waaw di leen joxaat rendez-vous rek ci yeneen foire xam nga di ñaan rek comme ni mu ko waxee rek beneen yoon boo ñëw ñu jàppal la bu baax ni la yóbbaaleel xam nga affaire yi gën a yaatu daal. waaw man nag damay nuyu gars yi ndax bergerie bi ah, ah, du ñun ñii kese du ñun ñii kese quoi ah. ñu ngi nuyu Habib maa xew waaw borom bergerie Ibra Degen moom ci stafu bergerie daanaka sax mooy borom xar bi di nuyu tamit Galas. waaw moom tamit mooy daanaka moom tamit ñëpp ñëpp ñëpp ci bergerie bi lañ ne quoi Habib maa xew ñëpp waaw deug la deug ni ñepp dal jërëjëf fallu mi ngi non mbokk yi ngeen nekkon fi ci bergerie Touba Keur Got tour nak wuyu na borom motax kuy wutu tour na nga xol bu baaxa baax li ngay tuddé sa bergerie ak tour yi ngay jox sa sa saxar yi ndax euh, euh waren mi yaakar naan tay war na gaay loxo dar na geminte yu boal tubub ciep ak kolkolub susal yalla nako yalla def nak mu doon mag mag mu am ñam ndax sama dig da cee nekk te incha allahu rabi xam naa ne naa ko jox téere mu takk ndax sama dig da nekk mbokk jox leen dig daje ci beneen box rek ak seen soppe sekk naan jërë ngeen